tey ñu teew fii ci Fass point de presse Ada Fass moo fi woo journaliste yi wala promoteur bi sàkku ko mu dëgmal tàkkusaan bu rëy du ne dimanche du ne le 26 dimanche la ñuy wax fële ci arène nationale LP production collaboration ak petit promoteur ñu dëgmal tàkkusaan bu rëy Ada Fass ak Coly Faye yaakaar naa ne tàkkusaan boobu ay ndaanaan yu bëri war nañ caa wane seen bopp LP production di xale bu ndaw ñëw ci làmb soxla ku ko jàppale ànd ak petit promoteur yi yaakaar naa ne journée bi amateurs yi ñu ngi koy waxtaanee Ada Fass ak Coly numéro 2 mu nekk combat espoir combat jànq combat boo xamante bi ni réew mi yëpp ñoo koy waxtaanee comme ni mu demee woon démb ci soq ak franc léegi dañuy nuyu xale bi nga xam ne mooy Ada borom ndakaaru léegi sax rax na ci Espagne ak yeneen réew yi bu ko defee mu nuyoog mbokku internet yi ñu tàbbi ci waxtaan maa lay siyaar bu baax la Mbappé di la bëggee. awuzu billah bismillah inna waliyallah jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jox la ko an misbaa karafa waaw maa ngi nuyu di leen fay di leen ziar di leen dalal waaw média bi yëpp ñu teew yëpp bàyyi seen yite mhm. teew ngir Ada maa ngi lay nuyu di la ziar di la dalal nga dëgmal takkusaan bu rëy sa diggante ak Coly Faye numéro 2 mais yaakaar naa ne question bi ñu war njëkk a mooy question bi amateur yi lan moo waraloon voyage bu gàtt bi waaw daanaka làmb ji moo ko laaj rek ndaxte du làmb lamb bu ndaw daal lamb bu ñu soxla la bu ñu yittewoo la ak tamit am lu ñu fa doon entraîné am lu ñu fa doon liggéey lu ndaw rek. Hmm. moo waraloon suñu voyage. Hmm. doole wala mystique wala expérience parce que la nga fa def bëriwul. non expérience expérience lañ doon yokku soxla ñu doole soxla ñu mystique expérience rek. te hmm. làmb. bu ñuy teg jéego di dem dañuy foog il ñu yokk expérience yi. Hmm. Uh-huh. macha allah am na solo bala maa wéyal yaakaar naa ne mbokk presse ku ci bëgg a tàbbali li nga xam mooy question rek ñu continuer ko Thierre bu disponible rek mën ngaa doxal bu ko defee ñu wéyal waxtaan bi. waaw Aada dañ koy nuy di nuyu képp ku ñuy bàyyi xel rek. Aada suñu première question mooy lan moo la dugal ci qualifier numéro 2. waaw Thierre maa lay nuyu di la fay dafa nekk champion nekk mbër daan ay champion bëri samay mag mu nekk sama mag jiitu ma ci làmb def samay preuve xam na ne champion la ndaanal hmm. la. tamit def naa samay preuve loolu rek moom ma dugal moom du leneen. ñu bëri ñu ne combat bi est-ce que nekkul euh, risque ci carrière yu man dara nekkul risque sama kanam ndaxte damay liggéey damay entraînement mm-hmm. sport la ñu wax du leneen entraînement rek seen le travail qui paye mm-hmm. waaw dañuy liggéey quoi te ay xale lañ. Mm-hmm. mais est-ce que xam nga adversaire bi nga jël ak yi nga daan am am na différence. non man adversaire du rëy sama la sama kanam samay bët ndaxte xam naa li ma mën xam naa li may def ak koo ti doon. qualifier réewul samay bët te balaa ñu may xam arbitre bi sifflé génn suñu diggante incha allah. mu nekk mbër boo xamante bi nii képp ku mas a bëreel ku nekk da lay agressé dox sa kaw andi la ay jafe-jafe est que Ada Fass bu arbitre bi sifflé qualifier dagg jëng yi agressé la lan lan fa mën a fekk. moo daan daa amul problème ñu ngi koy xaar incha allah bu arbitre bi sifflé na ma agressé ñëw ma lu ma ko wax yomb na. Hmm. bu taxawee daanu bu ñëwee daanu. kon bu ko songee mu daanu. du ci combat bi. si def daanu kon na taxaw rek daanu ñibbi. aada baa xeeboo kulifay mii nii jiitu la ci làmb ëpp la ay takkusaan yoo xamante bi nii jongante na ko ci biir làmb baa xeeboo ko. xeebu ma ko la mbër la sama grand la mais qualité yu may daan si làmb moom ak qualité yu muy daan bokkul moo daan daan xam nga làmb bu baax moo daan man damaa mën a bëre macha allah damaa mën métier bi. dama ko mën te ponkal jaaxalu ma damaa yàgg mbapat si àll bi. Mhm. damaa mbapat ba mhm. moo tax man ay. entraînement làmb jaaxaluma quoi. Mhm. waaw làmb mënuma dépassé. Mhm. waaw mënuma dépassé. nga dëgmal tàkkusaan bu rëy boo xamante bi nii amateur yëpp dan ne ci la ñu taxaw nangul Ada Fass wala ñu bañal ko parce que ci combat bi mu am diggante Coly Faye mu combat boo xamante bi nii daf la war a da nga war a libéré gars yi xaw ma yaay daan xaw ma yaay daan xaw ma da ngay niin danga nga war a libéré gars yi pour dem ci kaw est ce que xam nga lii la koy may ak combat fi mu toll ci dayoo. incha allahu rabbi moo tax ñu jool vol bi dem uti expérience combat bi xam nañ fu ñu yóbbu xam na lu ñu lu ñu mën a indil si làmb moo daanda hmm. xale maa gën xale maa gën a xale maa trois fois je suis encore xale bu ndaw laa mais damaa gëm suma bopp moo de mag ma si làmb est ce que ngeen moo la jiit moo mag hmm. mais damaa mën a bëre macha allah teel a vingt six nañu xam ne xale maa gën a yéen ñaar ku dàq bëre man damaa yóbbu topp ba sonn Modou man man ay ay riñaan yooyu noonu man man sama làmb dafa dafa wër man damaa daane prise bu nekk te incha allah la rabbi la 26 si kattanu suñu borom ñëpp nañ topp seen gémmiñ. mais Ada bu ma la déggee da ngay insisté ci mën a bëre gi mais moom dañuy xool ne ay combat am day agressé adversaire ba pare dalay jàpp daan la ci biir bëre. bu ma agressé ma daan ko jël bu rëy. bu la agressé yow mii ma daan ko jël bu rëy. sama doole laa ko teg. ak sama fit ak sama gëm-gëm. ak sama euh, entraînement ndax aada ndax aada ñeme na arbitre sifflé mu dox ci kaw Coly Faye numéro 2. waaw le 26 yàggatul. Euh. Euh, ay jours rek ay jours moo des. ñu bëri ñu ne ñu bëri ñu ne aada combat bi da koo teg ci musique trop par liggéey bi war ci moom à 100 pour cent ndax Coly Faye ndaanaan mais na la doo gis may ñàkk sa waay doo gis may ñàkk te en plus da ngay gis may xiixat man xale laa damay liggéey liggéey moo tax ma passe dem am lu mu fa liggéey ñëwaat damaa gëm sport bu may xale ba léegi maa ngi waaw damaa gëm sport la mujj si sport la ko teg te incha allah si sport lay jeexee. moom nee na li nga ci am mooy wax ji ambiance loolu lay bàyyal mais jour si li fay xew moom moo koy def. amul problème moom Paa la dafa bëgg la nga am si xale bi mënut ta nekk man du la nga sama kaw xale laa. yaa ngi yaa ngi xeeb Coly Faye de Paa. moo la ànd ba arbitre bi sifflé nga xam ne ni Paa la man maa ko wax ba arbitre bi sifflé Coly Faye di nga xam ne ni Paa la Paa nga. nee linjaa bi da koy daw mënoo cee mucc. yéex yi bokkuñu man yéexu xale laa yor ba mu ko xam ne xale ko jàpp. incha allah. linjaa bi nee na mënoo cee mucc de. amul problème ñoo koy xaar ñoo ngi xaar ci kàttanu suñu borom maa ngi koy xaar. mafia bu wow kong bi moo nekk ci ginnaawam tarkindaa yi. nga xam ne ñëpp ci bis. tarkindaa yi amul problème amul problème man FBI laa àndal FBI. FB. FBI laa àndal ñoom la ñu FBI lay àndal moom na àndal ku ko neex man FBI laa àndal te jour ba bu incha allah ata gaay ku ci bëgg làmb ji benn cartel la mooy Ada Fass ah, ah. ada làmb gi def cinq jours ñu ko sol dégraisseur mm. te sentiroo moo tax mm. dégraisseur mm-hmm. déedéet du diis du ndax de instant bi dafa tàng te graisse bi il faut mu wàññeeku moom dafa jël graisse ne moo ko moom di sol ay ay ay ay ay ay lu mu sol noonu <laughs> sport dafa am lu mu laaj quoi dafa lu mu laaj sport dafa dafa fiir li dégraissé lii pour sama téye sama koor la sama yaram laay xam laay waaw laay dëkk. rek sant yàlla ndaxte man ak booy yëpp ay génération lañ man ak ñoom ñoo fowandoo Ndakaaru ñëpp ma xam aw ma sens interdit fenn du mm-hmm. Ndakaaru kese banlieue bi ak si àll bi man aw ma sens Sénégal ndaxte Sénégal ñoo ma bëgg ñoo ma waaw incha allah le 26 yàggatul moom ëpp dina leer. moom afay mbokk ba tey lan ngeen di wax promoteur bi LP production bii di première tuusam mu décroché combat Ada fas ak Coly Faye ñaari xale yoo xam ne dañu am yaakaar ci biir làmb lan ngeen di permettre promoteur bi mu collaborer ak Petit production dimanche pour mu am satisfaction totale ci bis bi waaw LP Events Petit promoteur idi seen DG mhm. maa leen di nuyu au passage ndaxte li yombul ay ndaw lañ ay ndaw yu ut lañ gëm seen bopp dëkk si réew mi mhm. tey jii bu leen neexoon ñu dem immigré mais fii lañ toog léegal seen réew maa ngi gën a ñaax rek ñu gën a jàppante ñoom ñaar ñoom ñett ñu gën a jàppante ñu liggéey incha allah te incha allah rabbi le 26 li ñuy séntu incha allah yàlla na ko suñu borom def arène nationale de fan yi daa bëri borom ku ne nee na moo ko moom ndax mbooloo ma kan moo moom arène nationale waaw le 26 suñu borom yàlla na ko yàlla na feesal lépp suñu borom moom mun ko waaw côté mobilisation mais ñoo ngi woon Dakar ñoo ngi woon Dakar du ma limee rek damay Ada Fass euh, mbër yi kenn ku ne xam ne bu ñuy bëree dañuy def ay un mois deux mois yow kenn ku ne xam ne sa diir bi yàggul yow loolu noo ko dundee ak lan moo la yóbbu woon. non lu ndaw la rek lu ndaw moo ñu yóbbu woon foofu lu ndaw la entraînement bi laajowul ay un mois laajul deux mois lu ndaw la woon rek ndaxte loolu noonu programme woon nañ ko bu yàgg moom mu ngi woon toog di ma xaar waaw mu ngi woon toog di ma xaar 48 heures laa 24 heures laa doon entraîné 24 heures. barke Serigne Bamba te ay. dem foofu def fa ay au moins quatre mois yëpp garaawul xale du noppaloo xale du son man xale laa waaw. mais tamit mu lancé message parce que fan yii gis nañ tamit. Mhm. daa ji yi. nga daan daa ji seize nga daanu daa ji seize. Mhm. Ah, tamit di mbëru penc di mbëru gox. Mhm. jëm ci bis. ak lu mën a xew naka la fas yéene préparé. moom ak ay supporters am ah. pour le 26. ak lu mën a xew looy wax supporters waaw loolu damay lancé appel lamb ji. ñëpp ñu ngi lancé appel samay supporters kese. lamb ji yëpp lamb ji yëpp amateur yëpp laay dina làmb ji ñun suñu làmb la suñu suñu stade la bokk mhm. ndax de joueurs yi am sen stade football ñun am suñu stade mhm. nga la waaye dañ ko sàmm surtout dañ ko sàmm quoi mhm. ñun supporters lañuy la ñuy informer rek ndaxte ñoom seen bu tàngee rek duñu mën a téye seen bopp ñoo ngi leen di ñaan ngir yàlla war a soli suñu stade bi moom la am bu leen ko yàqee amuñu fu ñu jëm waaw nañu dimbali euh, ku sa mbër daanu nga encouragé ko yëkkati ko mu liggéeyaat lu amee làmb yàlla na ko suñu borom mayaat ndam ku sa nga ah, nga jubile nank wàcc dem ñibbi mm. baa ñu suñu stade bi ngir yàlla mm. ngeen dañ leen ko ñaan rek supporters yi amateurs yi mm. ñun mbër ñu leen di ñaan loolu waaw suñu stade bi ngeen sàmm ñu ko ndaxte làmb dafa métti mm-hmm. tey ñi mbër bu ñu aj xoolal say waajur yaakaar si yow say mbokk yaakaar si yow keneen yaakaar si yow bu la ajee doo am loo def tey da ngay toog du xoole tey ji loolu noonu supporters yi ñoo ko mën a xeex si mbër bi jàppale ko mm-hmm. bu ñëwee stade toog setaan seen mbër neex la star bi seen bër daan ñu dem ñibbi. bala ngaa woote lamb ji live la pay-per-view ah, gis yow fii nga dëkk promoteur bi dëkk fii ki ñu ko tuddee dëkk xam nga tey loolu lu muy na est bi diisul. bis bi diisul ci fi nga dëkk ah, loolu sant yàlla rek loolu sant yàlla Modou Anta déggoo ma la bis ma turee si man ndax damaa bëri champion daan ko si une minute xaw une seconde. ñëpp doon coow. lam mënu maa dépassé. loolu damay sant di woo Bamba Fall di ko nee mu jëndal ma vingt bloc bi mère Bamba Fall mère Mbirna ah na ko jëndal ñaar dix rek baax dix dix waa Caaroy ñëw waa Caaroy ñëw non lamb ji man sama lamb du yàgg Modou man sama lamb du yàgg da de xaw ma bii la huit fee bien fait incha allah nga wax sa supporter seen avis point com la lamb ji daw pay view ñoom ñëpp ñu dem jëndi code surtout am nga ay ay ay ay supporters ci immigré yi way daan waaw supporters yëpp maa woo seen affiche point com ah. lamb ji daw lamb ji daw PPV la mhm. na gaa yëpp na diaspora bi surtout waa Espagne waa Palma fu ma nekkoon mhm. sama papa ah, ah, kii ni sax wëz wëz piicu sama papa Palma euh, Pomze sama grand Chérif ñooñu amoo seen fay mhm. waa Espagne bi yëpp sama dëkk <laughs> maa leen di <laughs> maa leen di nuyu au passage di nuyu dëkk bi di nuyu waa Ngaay Kajoor Kajoor yëpp maa ngi di woo si làmb ji mm-hmm. bool bool yëpp jolof jolof yëpp mm-hmm. waa Tayba mm-hmm. waa Canaba waa Canaba Modou combat bi macha allah quoi <laughs> ngi sant yàlla bu baax a baax gars yi ñaanal nañu suñu borom moo mooy jour bi incha allah suñu borom mooy ñu ndam maa ngi gërëm ñëpp nag Modou waaj nee na bu takkee jaaj yi bu diwoo doomu taal bi at bi gën seen yi neex naa ñi mi waaw waaye tarkindaa bu takk jaaj yi diwoo doom bi waaw tarkindaa yi topp ko na ko laa oh, may mm, sa waay kooku dafa war a alterner trois mu wàññi graisse bi tuuti dégraisser yaramam laa mu sport day dëgër lamb sport laa doo ko demee nga ko la eh, mbër da ngay dëgër te incha rabbi bu mu ko jàppee dana xam ne xale bu ndaw ko jàpp. ayca dernière bi mooy lan. waaw maa ngi sant di gërëm sama waa écurie sama waa écurie aw ma seen fay waa Fass Benno sama grand jili combat bu mu taxawee ba léegi dafa bàyyi ay yitteem ñëw taxaw mu baa soose waxi noppi sama per El Hadj Koundoul suñu président écurie di sant waa Fass Fass bi yëpp maa leen di sant. Colobane Gueule Tapée Grand Dakar Médina HLM Bentali Waaguñaay Jëppal Waxaab Ngor Yoff fukki penc ñaari ndakaaru yëpp maa ngi leen sant di leen woo maa ngi sant képp ku ma jàppale Xadafi ah, Xadafi Xadafi Xadafi maa ngi koy sant bu baax a baax Chimère di sant sama yaay Béti Ndiaye di sant sama staff di wax open presse bi la incha allah terrain maa ngi sant sama staff di sama staff dol di santaat sama staff ndaxte saison bi dama si bëree trois combats jànk ñu taxaw ma ndaxte loolu dafa méttee xam nañ ne man xale laa waaw xale laa xale bu ndaw laa mais dimbali nañ ma bu baax taxaw nañ ma hmm. aw ma sen fay maa ngi sant Abakara Baye Fall bi maa ngi ko sant bu baax Abakara kooku jàmbaar la hmm. maa ngi woo ñëpp làmb ji du ma limee rek damay juum président gi Thiaroye moom fu mu dëgg sax Thiaroye Géej président Thiaroye président Thiaroye Caaroy Géej gis lu ma taxawee kontaan naa bu baax a baax a baax. jërëjëf waaw Thiénaba Seck yëpp. kon rendez-vous mercredi terrain chantier 16h. 16h30 open presse na gaa yëpp ñëw incha allah.